formation bi dafay permettre ñu euh, renforcer capacité wu ñuy liggéey ci biir euh, euh, secteur bi mooy maanaam ñi nekk ci ñuy liggéey ci système financier décentralisé pour leur permettre ñu am monter en capacité comme ñu koy waxee ci ci ci wolof mais pour leur permettre au moins yokkute ñu am yokkute pour mën a délivrer ay services de qualité Euh, à ñi nga xamante ni ñoo ko soxla ñoo ko soxla au niveau euh, national au niveau des différentes communautés. comme ni ma ko waxee woon sànq euh, fonds national de la microfinance ñoo ko créé en juin et dañ ko créé comme ni ma ko waxee sànq pour mu contribuer pour améliorer l' inclusion financière des populations loolu benn pàcc la beneen pàcc bi mooy xool bi ñuy jàppalee système financier décentralisé yi Euh, comme ni ma ko waxee woon sànq dafa doon mayon bi nga xamante ni dafa important ci euh, service yu ñuy délivrer euh, population yi pour ñu mën a am ay financement pour mën a liggéey liggéey lu liggéey parce que comme ni may faral di ko waxee institution de microfinance yi suñu amulee formation bu ci war suñu amulee ay capacité yi yi yi war du ñu mën a jox population yi soxla ay financement ay ay crédit yu adéquat donc loolu yëpp dañu doon benn maillon bi nga xamante ni euh, il faut que ñu leen di renforcer ñu leen di tàggat tout temps pour ñu mën a euh, def ay liggéey yu mucc ayib. kon nañ ko commencé depuis 2016 2016 ba 2019 avec pour dañoo arrêté mais ren avec l' du FONAMID dañoo commencé à redémarrer cette formation une formation diplômante parce que dañoo xoolal ne institut de microfinance les formations agents yi amuñu woon xarañteef boobu te. formation bi ñu leen jox c'est formation boo xam ne da leen joxe am diplôme diplôme boobu tamit parce que day tax ñoom ñu renforcer seen compétence mais diplôme boobu tamit ñu ci bëri agent yi ñu formé yu bëri day tax ñu mën a am ay promotion au niveau de les institutions mais ce que je voulais ba ma bëggoon wax diplôme bi soo xoolee c'est reconnu dans vingt cinq pays yoo xam ne vingt cinq pays donc c'est un diplôme international dafay mën a gën a permettre am xarafte xarante boobu parce que ñu am personnel boo xam ne dañu mën a capacité à chaque fois ñu mën a répondre aux besoins des populations l'objectif final c'est d'avoir des ñoo xam ne ay agents yoo xam ne chaque fois pour ñeen client bi ñëwee ne dama soxla tel produit tel tel kii ñu mën a adapté wu pour répondre à leurs besoins formation du remis diplôme boo soo xoolee moom mooy on a euh, euh, euh, session deux mille vingt deux mille dix huit ak deux mille dix neuf ñooñu lañ def de pour pour c'est dans la formation mais bon xanaa li am na changement un parce que bien passé dafa amoon module bu ñu beneen formation dañ ko doon tuddee euh, de crédit mais léegi dañu sens dénomination tuddee tuddee ko de clientèle parce que aussi il faut que ñu ñu mën a adapté wu ak adapté wu de nouveaux produits ak de nouveaux modules de formation. ñi ñu tàgge tey jii tey jii am nañu quarante cinq yu ñu ñu tàggal fii nii mais am na benn formation responsable euh, d' agence bi dinañ am lu mat euh, ñeent fukk formation responsable chargé de clientèle formation bi fukki fan ak ñett la benn jour externé pour euh, responsable d'agence si fukki fan ak ñaar ak benn jour externé